la parole est à, à, à notre collègue Aminatou Diao. Abdoudien se prépare. assalamu aleykum mi salmini kala député gonɗo ɗo goto fof e inde mum e yettode muɗum mi salmini président mi salmini ministre des finances de budget mi salmini ministre samba si mi salminima moƴƴa mi salmini ministre agriculture mi weltanimama e minen beltanimo hannde sabu ministre agriculture hannde si ɗum haalama ko ma min belto minen ko ndema e gaynaka woni département velingara e o immima ɗo dakar o yeehi ha département velingara o yeehi ha lenkerin mi jaarima mi salminima mi waɗima félicitation ayi hannde e hikka demal ngal no wayi to affaire kololaaji o tollo hikka moƴƴaani donc goo monsieur le ministre département welingaram min calmini président république du sénégal mon excellence président makisal min beltanimama mbo saabu ko heewi mbo waɗi e nder département welingara yeehi ha sooda guiri ɗum woni dg alpha bocar min calminimo min beltanimama mbo so président waɗi ɗon golle piɗɗe président makki min beltani ma mbo monsieur le ministre département welingara minen colli ɓeydaneede woodi ko manquiri minen to affaire traiteur ji min jogii probléme affaire ko yaara commune sappo e nayi quatorze commune minen mbal mballa minen pour min mbawa heɓde traiteur ji gasi mballa minen min keɓa ah, awdi law pour min mbawa hebde law ɗum e ko goho si ɗum gasi min keɓa intrant ji woni engrais e urée minen colli kadi no yaa law sabu ndemoɗo pour mbawa wadde préparé ko ma keɓa awdi law ganda ko ndemara ko sabu si a soppi guesa a ala awdi han ko ma deeƴaraw awdi minen paala awdi ndi yaaha law si ɗum gasi minen paala nde département weeli ngara mbaɗa suivi e engrais maɓɓe ɗe ɗo ire naɓe ɗo saabu hannde département velingara ko région euh, euh, ji peeji woni ko kawra e nder département velingara peeji tati ɗum woni gambi guine konakiri guine bisawo ko frontiére ɗo min goni peeji tati natara ɗon saabu hannde somin gaddinama engrais walla ire si a ala dowle ko a ndemoɗo ana solli e, ire e engrais ko yara sakuji ɗiɗi si a ala dowle jogui dowle o ara sooda ɗum naɓa ara sooda gese naɓa minen paala mbattana ɗum yiila no feewi sabu ndemoɗo si a heeɓi awdi ma ndiya ko ma keɓa intérêt e ko mbawa mbaɗɗo wadde hen pour mbawa wadde heɓa no ko engrais e gese si waɗama engrais walla tubaño ko ɗon ɓuurta jogade dowle si hannde a adnama ɗum si ɓuuroma dowle ari soodi han a heeɓi caɗele minen paala darɗa hen no feewi sabu neɗɗo si a naɓi hunde dulara yo allah mbawen liggade e jam moƴƴere onon mine siji yo allah waɗan on jaam e kisal e ɓeydare merci wassalam Merci, euh, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, monsieur les hauts fonctionnaires qui les accompagnent ñu ngi leen di jox seen wàcc waay monsieur le ministre de l'agriculture dama wax ni réew mën fi kañ koom-koomam koom-koom boobu mu ngi sukkandiku ci mbay te mbay pour mu mucc ayib mu ngi sukkandiku ci suuf su doy loolu yàlla baaxee nañu ko ndox mu doy yàlla baax nañu ko semence de qualité yu doy loolu problème boobu la ñu am ak intrant de qualité yu doy problème boobu sam nañ ko te problème boobu mën ko régler moyen dong la moo tax ñu sant euh, d'abord sant député yi parce que wax dëgg yàlla toogaay bi yàgg na depuis ci suba ñi ngi fi toog euh, pour waxtaan ak ñun ci wàllu mbay bi wan ne mbay mi intéressé na leen question yu bari na Euh, daanaka lu mat juróom-ñeent fukki député ak ñeent foog naa bindoon nañ donc wax nañoo ñoom li nga xam ne li mooy gis-gisu président Macky ci wàllu mbay parce que kenn ku ne xam na mbéy également fi nga xam ne fii fi la ko président Macky Sall fekkoon ak fi mu ko yóbbu tey loolu aussi mooy li ma wax rek mooy politique ak vision moo ko yóbbu foofu donc am na avancé yu am solo yoo xam ne am nañ ko ci mbéy mi gis-gis boobu moo ko fi indi donc watal nañu suñu budget sant yàlla kon jox nañ ñu jumtuwaay yoo xam ne danañ mën a liggéey ci année 2023 bi. am bi yan production xam nga bu ñu tollee fii déjà dafa am estimation yu ñuy def ci euh, ci production yi donc estimation yu njëkk a génn bu ñu demee ba ci kanam dañ ko gën a confirmer mais estimation yu njëkk a génn wane na ren ci ci mbayum gerte dana am lu wàcc na tuuti téeméer bu nekk foog naa ne fukki ak benn euh, wàññeeku na ci par rapport ak daaw li nga xam ne lii moom lañ bay ci ci lañ récolté ci gerte te yaakaar naa ne loolu aussi ku ko déggit bettul bettul waxoon leneen le contraire mooy bett ndax kenn ku ne dégg na béykat yi ñu ngi wax ne gerte gi meññ la mu waroon a meññee également am nañ aussi euh, baisse ci ci production wu ñebbe bi parce que ñebbe également euh, am na boobu sax moo gën a rëy euh, li ci wàññeeku xaw na bari par rapport ak li nga xam ne lii moom lañ defoon daaw. ñaxtu ñaxtu secteur primaire bi. waaw waaw secteur primaire bi am na ñaxtu yoo xam ne depuis bi ñëwee ba léegi ñu ngi ko fi fekk aussi waxtaan ba léegi mi ngi doon am. Euh, am na loo xam ne lii jàppoon nañ ko ñun aussi ñu jàpp ko ci wàllu nguur gi bi ñu waxtaanee kenn ku nekk ñun am na lu mu bàyyi yaakaar nañ ne bu suba bu ñu dajee danañ mën a juboo ci benn benn chiffre boo xam ne bii danañ ci mën a dem ak ñoom. waaw circuit distribution bi aussi de vrai honorable député posé nañ question yi wax nañ li nga xam ne li moom lañ ci gis moom lañ ci xalaat parce que ñoom aussi dañu nekk ak population yi ci terrain bi euh, muy majorité comme opposition effectivement am na nit war a jot ci gerte gi du ci jot à temps wala du jot gerte gu baax nit war a jot ci engrais bi du ci jot à temps du ci jot lu doy donc loolu lépp d'accord nañ ci ak ñoom ci euh, rëq-rëq war nañ ko mën a joyanti bu euh, liñ ci jublu rek mooy fexe ba gerte gi engrais bi ak matériel agricole bi dem ci baykat yi magasin de stockage aussi am na solo ndaxte kenn ku ne gis nañ déjà que ne buñ xoolee rek lu mel ni lu mel ni lu mel ni soble si déjà Sénégal li muy bay mën na ko dundee waaye bari lu yàqu parce que mënuñ ko mënuñ koo denc donc gouvernement Sénégal engage na benn programme boo xam ne bii am na cent vingt euh, magasins yoo xam ne yi vingt yi ay entrepôt frigorifique la loolu dinañ mën a permettre ñuy denc euh, li ngay bay am na aussi ay prix yoo xam ne bëgg nañ dugg ci secteur bi ñu ngi waxtaan ak ñoom pour ñu mën a optimiser euh, fi nga xam ne fii fa lañ ko denc xam nga soble si bari na buñ ci mënee denc une partie dana mën a tax li nga xam ne li ko léegi mënuñ ko

s'associent. Euh, comme ça, dans le cadre de cette association, c'est peut-être beaucoup plus simple. Ils peuvent venir ensemble pour l'acquérir. Il y en a aujourd'hui un maire qui a fait une proposition intéressante. Pourquoi ne pas faire de sorte que les collectivités territoriales puissent en avoir, ce qui est également, euh, aujourd'hui prendre un tracteur et mettre à la disposition, peut-être avec des prix moins chers que, simplement les autres qui sont des, des, producteurs. Voilà un peu pour que euh, plus de personnes Euh, intervenant dans l'agriculture puissent accéder à ce matériel. Vous avez annoncé un programme de construction de magasins de stockage Là aussi, on a mis ça à la disposition de, des honorables députés. Le, le, nous avons signé un programme très intéressant dans lequel nous avons euh, déjà au niveau de l'État un programme de 120 120 euh, magasins de stockage dont, dont les 20 sont, sont, des, sont des entrepôts frigorifiques. Donc c'est important. Nous avons également d'autres privés qui sont dans le secteur avec qui nous sommes en train de travailler pour optimiser euh, l'implantation de ces magasins de stockage.